di di di sant ñëpp di nuyu waa ceeskaay kaay benn dëkk ñaari gaar waaw te xam ne daje du leen lu dul artistes yi ñoo aye artistes ñoo xewle ceeskaay benn dëkk ñaari gaar capitale du théâtre moo xewle waaw ñuy def festival boo xam daan nañ ko def ay ati at Euh, ren nekk suñu neuvième édition mais trois ans yi weesu yëpp Covid bi fi jotoon a jàll ak yooyu moo taxoon defuñu ko waaye loolu moo waral nag artistes yëpp teew artistes yëpp ñëw fi nag incha allah loolu moo waral teew. luy mën a xaar ci maam Thierno si seen. lan tey ji ah. tey dana mel ndame banaana gu ñu liggéey lam c'est-à-dire. non tey lii ko tardé tëñëx gi zeng bu bari pont. dégg ko tardé ku ko tardé. di nga tëñëx zeng bu bari pont. na gën a ko yàqu. non da da nga bëri bande bande de. maam Thierno nga nekk en direct ci Thiès 24. Mm. émission ordinaire man Babacar maa ngi koy def. Mm. tey la nga ci wax ak bonne satisfaction nga jam tey. waa di di am mbégte ak kontaante. waaw parce que bu ñu nee ëtt ndaanaañ rek yaakaar naa ne xel war na war a mën a daw. li naan xel dafa ñaaw waaye bu ne ëtt ndaanaan yi xel war naa rafetaat te xam ne démb ngi ñëw ndax ndaanaan boo déggee ndaanaan kulli ndaanaan rek yaa ngi ci biir muy kat bi muy kat bi muy nitu démb muy taasukat bi ñëpp ndax ñëpp ay ndaanaan lan aleykum salaam tur bi naka la man Babacar laa tudd ñu gën maa xamee si góorgóorlu sa <laughs> uh-huh. baa ngeen jóge ba Dakar tey lan lañ mën a xaar ci tey waaw tey moom fii dana mel ni tuq sa bënn saañ ba réer tey nag maay président président ORECA euh, Arco. Arco waaw man maa yor organisation bi loolu moo tax tey na ma wax sax. Uh-huh. waaw loolu moo tax mënu ma wax damaa sonn. kon daal ñu xaar ñu biir daal waaw dinañ xaar ñu si biir tey moom dana neex moom. Ah. incha allah léegi nag incha allah. tur beeg sant bi salaamaaleykum. waaw Fatou Kiné bu Thiès. bokk Arco Thiès. Eh, di ci organisation festival bi nga xam ne moo woote. ñoo woote tey wax dëgg yàlla waa Thiès ñëpp wuyu suñu. mu mën a xam te lu war a ndajale. ndajale mooy maanaam xam nga aar. des fois de temps en temps day ci baax ñu woote ñun suñu biir xam li suñu valeur xam suñu métier ne lii du ay fo du ay caaxaan parce que des fois nag mën nga toog sa ruq di liggéey mais des fois ngeen dajeendoo xam nga ku nekk indi sa création boobu idée yi génnewaat ñu innové rénové xam nga àdduna yëpp xam ne artiste tey daje nañ ndax ku taxaw fii xam dañu naan fi lu fi xew ndax dañu yaakaar meeting la politique affaire yooyu alors que artistes yi ñoo fi daje xam nga artistes am nañ doole ci biir Sénégal na fa daje ay artistes yoo xam ne différents réseaux lañ nekk na yi ñoom seen cohabitation dafa facile ndax xam nga dañoo am ouverture d'esprit méttiwul artistes yi carré wuñ soo gisee tey tey tey artiste mënu ko gis tey miin ko tey ngeen bokk fe ngeen fanaan te amul benn problème donc loolu moo xam naa ci artiste rek la am comédien ñu mën a xam lu ñu mën a xaar ci far ki euh, ci festival bi nii ah dina neex dina yëngu mhm. waaw ñu gis ndaw ñi léegi ñuy bëgg a dugg théâtre mhm. ndax pare nga jox conseil ndaw ñi xam ne à chaque fois ñoo bëgg théâtre ñoo bëgg dugg théâtre yow nga ne ci biir la nga leen di conseillé nañ ko gëm rek te bëgg ko mhm. soo ko gëmee bëgg ko macha allah dara du këf te xam naa ci fulaak fay dara ngay dox waaw jërëjëf ñu ngi noonu